yow da nga koy jëriñoo ci sa bëgg-bëgg àddina rek ker bi ngeen tarawee ca kanam yàlla te booba moom nar a wala wala te dëgg rek moo ko ne su gënoon su gënoon ñu ngi ko yàqal yëpp yëpp yëpp yëpp luñ la bëggoon ci àddina xamal ne dana la bañ lu ko raw te itam lu mu xattamoon ci àddina ba ci wàllu gën a am xeeb na ko noonu lay soxatee ci ci càllata ba mu mun la teg rek dana ko tax. xam nga inna atana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila xam nga wax la mu ne ñu toppoon ñoom réeréer mu ne moom kay ma danga gis ku nekk fa wara da kalaame ci lu gaan goon ci àddina daan ko ma toppoon moom réeréer rabbana aatihim di'fayni min al-'adhaabi wa la'inhum 'adhaaban kasiiraa waree ci lu gaan googu réeréer ko nag mbugal mën nekk lu mu tap tap ndax it nañ doon tooñ yàlla ci njabootam kooku mbugalam nekk lu mu rek moom kii da koy topp li nga xam ne su fekkee foofu lay mujj day tàmbali xam nga la xam nga su xam nga su fekkee foofu lay mujj day tàmbali ko xam nga la xam nga su fekkee mu ca tàmbali loolu baax la waaw. da nga ko da nga ko wan di dëgg waaw ngeen bokk ca nekk bu njëriñ jotee ku ne jëriñu yërmande man day am rek ah loolu moo gën dégg nga wa kullu mahabbatin alal haalayni munfarajun wadiq ah mu ne ba jënte gannaaw yàlla ko laal dafay ba faw wa kullu mahabbatin fi ma siwaahu fakal halfaa fi laha bil hariq mu ne waaye ba jënte bu ko yàlla lalut daanee ko foofu ba ñax rek la dara léegi mu jël jëriñ mën naa kumb de eh, waaye du mujj fenn tamit waaw waaw ma taxawale waaw ay kii waan alaaji gumba joowonin karaaji réer lay sa doon mu daaja xam lay yooman bis wala bi muqallidin te duuma aji topp xoola lu daa ñoom njub kooku mënul tegee sirat lay mustaqim yow yoonu junne bi ak kuréelam bi soo ko soobu ana soobu ji yéen laaj moom la lay jàngal mu ne fay daa tamit bu yëkkati ko dikk ak yow sunnatun witte sadaqatun day jiite akoon te su nekk mën a ji ci soobu seen yoon fa baadir ne bàyyi soo ko dawal ko sax doona la gindi mu ne ker bu soo te jëmee nag ci soobu yoonu mbaax xamal ne sa te ci rek na jëm amul deng-deng fay daa tamit bu yëkkati ko dikk ak yow sunnatun witte sadaqatun day jiite akoon gisuloo ci maraaj yi ci suuf seen yoon fa baa bir na soo ko dogootu sa doo mën a waa matin na nga dëgëral anaaj a fekk bu ma dëgg dëgëral dëggu mooy sa anaaj te nekk bu nag wasu dut te na ngay takk soo xawee ca kaw anaaj boobu karabal mahabbati bu mahabba nga dem mahabba mooy sa karab waxtu si te nga laxasayu nag wata jarra di te nga futtees nga raflawu maanaam ca ñoom nañ daan rootee bal bu ñu rootee dafa am buum bu koy ronu da ko taawu bu duree ndox buum boobu moom la ñuy wax naaj su ko defee am buum boo xam ne moo koy faral kaw di ngay toog ba bu da ko ñëw de xañ na ba ñu wax karat dafa mel ni da ngaa rooti mooy da ngaa def asut ko da ngaa def da ngaa def asut ko muy sa buum buumu naaj mooy nga fondamaaj sa mbir nga fondamaaj sa mbir nga dem mahabba mooy sa buumu karab mooy mu lay puus di nga góorgóorlu wa dama ne mattin na nga dëgëral danaa jël surtout buum gaa moom dëggu la wasu dut te na nga takk foo kawee ca kawam karabal mahabba si buumu cofeel waxtu sin te na nga laxasaayu wata jarredi te na nga raflewu wal tulli te na nga yoor xar ban baag mi ngi jàkkaarloo sa xel mi la ba mun a tënk ci nga def sa pelle muy baax nag nga di ci rootee. loolu daa nga xam boo defee root reere mu sori din doon du laaj néewal root waaye soo nga root baax ah a ngaa amee xel mu xàmmee nga dëggu ci bëgg da nga sopp li ngay lool su boobaa da nga mën a jëriñu ah da ngaa amee mu xàmmee te itam nga dëggu lool ci bëgg sa mbir nga fondement ko ci dëggu te itam nga bëgg mu jaral la lool ah, sa mbir da nga koy fondement ci dëggu. ci gannaaw boo xamee kon jaral la lool subaa da nga mën a jëriñu daa na ko wakkoona ma sadakin kiraamin bammarin min asmikal mamsuudi laysa bi hannadi walaal te na ngay laxas ala nujubin ci gëlëm yu tedd kiraamin yu rëwee tedd bammarin yu rëwee xaas min asmika ci sa takk almansoori gërë guñ raw lay sa bi on na din wéy duñ wéy bañ duñ wéy mooy laab danga def xasmu mooy sa waruwaay xasmu mooy nga def góorgóorlu te yëngatu yooyu nga def ko teg ci yoon waaw bañ a nekk di yëngatu li nga def wut yoon mooy loolu waruwaay la ndax loo koy def yokku ca rek ngay def kon ñoo xam ne waruwaay su mu mujjee dem adam ba fu mu tolloo rek lay def wat but na ngay takk masaada sabri mbuusam muñ moo kamatal horaan bi moom mooy lu ñu tëjalali buumam la fonk muñ bu baax a baax waaye natt yi boo leen muñut du mën a sant waaw dana ko sama waaw waaw natt yi fokk di nga muñ leen wette sa wette na ngay dimbandikoo bi awn rabbika ci te nga doon ko fonk ragal yàlla doon koy dimbandikoo yàlla ci muy bu baax a baax dangay fonk muñ nga def yàlla muy seen dimbal te yëg yëg li ci moom ci muy bu baax a baax watagal la wante na nuusu an umme dafren ci umme dafru kon wetu duniya la comme ne ak doomam te nga doon ko mën a muñal àddina hubbu dunya rasu kulli xatiyatin waaw nit bëri na lu bon loo mu def wala lu bon loo gis mu dal ko su gaadina rek moo ko waral waaw su gaadina rek moo waral waaw bëgg ni jaaxu bëgg lu ni maali bëgg la yàlla ci nit ñi mu ne yooyu da nga koy bàyyi dégg nga waaye xam nga baax na àdduna day jeex loolu ku ne xam na alaakara du jeex ku ne xam na lu jeex ak lu jeex nag lu jeex ak lu itam juróom waaye kon àdduna dañ ci jël loo mën a defaree sa alaakara waaye bu nangu topp ko mu jeex sa alaakara waaw dañ ci jël nag loo mën a defaree alaakara ndax moo ko yem waaw waaye nag boo ko topp nag mu jeex sa alaakara waaye kon yaa day jël dara day jël dara doo ko ne doo ko ne doo ko dara. wata kalla wan te la ngeen niisu an ummi dafrin walis ummi ak doomam wataw de an ha te lañ ko dénk daara nik sin kërëg aji suufe koo du din ku daa ragal jàngal Quran de ulay ka kalan bal moom adallu soo bëgg da bokk ci ñoom war nga na bàyyi àddina ndax ñooy ñu koy liggéey xam nga la waxee ñoo ulaaye kala naa bal moom adallu waaw soo ci bëgg da bokk waaw bu leen niru ci topp àddina waaw bu leen niru itam ci yemale si nim si ci àddina ndax ñoom ñoom ñoo ñu koy liggéeyal saxaari xam man tawallee am fikrina wala ñu rucc lal xayaat dunia mooy ñi nga xam ne at mën a luñ jëmbal dañ ko leen di xool bët saali kon lu ko mi ne neen lu ngeen xam-xam saali kon lu ko mi ne leen lu ko ngeen xam-xam waaw si suñ ko bàyyee waaw waaw dañ ko leen koy bàyyee wala wata wala yan te na ngeen niisu am ummu dafrin ci ummu dafru te mooy adduniya dafru mooy salte kasaw kat gu bon wan ne ah ak doomam da ngay mën a muyal adduna waxtay dianaa te nga dénk ko mm. daara ni seen kër aji suufe mm. koo di din ku daa ji ragal mm. ñi nga xam ne seen xam-xam ci àddina rek la am ba moom rek lañ war a lañ mën a liggéeyal kenn la nga dajale ci peñe ci àddina ngay bañ a nekk dafa da leen ko yéene mbaa da leen ko ñeexee mbaa da ca bëgg a jaxasoo ñoom su boobaa da la yóbbu ci bëgg àddina rek inna salamata min salma wajaratiha an la taxulla bi waadin qurba waadiha mu ne seulement soo bëggee mucc ci moom mooy dëkkandooram bi dangay wàcc fa jël wut kurum adduna soo ci bëggee mucc waaw ah, fa nga bañ fa nga bañ di yóotu ñu koy liggéeyal waaw ah, fa nga bañ di ñëwee ñu koy liggéeyal fa nga bañ di yóotu ñu koy liggéeyal waaw ah, kon la ko xeet waaw inna salamata min salma wa jaratiha an la taxulla bi waadin qurba waadiha waslin te na ngay dagg xibaalal wasli buumi jokk min haa ci àddina bul ko nangu topp dina ko baax a baax bul nangu mu xatal la dina ko baax a baax la yaqul ngeen la bu wax la kañaa la wudduha sopp àddina min baadi nabbin ci gannaaw ñoral mi ram ni di doomalal mu ne ngeen la dunia moom la xeen ci togg ba mu ñor def ca doom moom la xeen ci lakk ba mu ñor def ca doom coono wut ak coono togg ak coono wut ak coono lakk moo fay nekk te njëriñal togg njëriñal lakk di ca am yu baax ba bañ ko sellal waaw bu duniyaa bu mu la xeen ci ñàkk a sellal yàlla yow boo sellalul kii sellal lu mu sellal rek lu mu def rek ngay def buy jaamu yëngu yow boo sellalul kii sellal lu mu ñàkk rek ngay ñàkk buy jaamu def def ngeen bàyyi googa nag moom mu xam fayoo yàlla yoo xamuloo loolu te mooy bu wuti jotee wutoon nga wut wut nga mu wut togg jot nga togg mu togg waaye nekk jot moom mu xam lu mu def yoo xamoo loolu mooy lan loolu bu ko nangu dëgg la bu baax a baax jaamu yàlla ci riyaa baaxut tagg nit ñi nga xam ak yooyu ko amul solo ci nga nit ku mën a doon dafa war a xam de yàlla xam ci war a mooy dëgg ku ne dafa war a xam daa nasalta ala karimin nafiin rax bi dara jammil qira mutafaqidi sukunil wa anta bayna duyuufi laa takan fi sadin wala tatazakadi fa in irtajayta aw irtajayta li gayrihi yawman tabu minhu bi'aarin musbidi والذم ناقص أو يحوله ولا تخطر عليه ورأيه فلتحمدي loolu doy na mu ne wa ida nazalta boo wàccee ala karimin ci karim mooy ku baax a baax a baax ku daaji xoomal yow soo demee ba am jaati gi bu ne ku baax la ku jeexalu daral rax bi dara ku daaji yaatu ci dingere ku xam kum la dalal la lool yaag lépp loo xam jëmmil fara ku daaji bëri ci nganale li ma am ci kar li ma ci ñam li ma ci ndox mu mën a joxe na say soxla yow mutafakkidin ku daa ji gëndeeku ñim xamee àqi gan aw mu war a yow liñ ci xam ni ko mbiram mu war a yow su sa mu war a yow su sa yitte àgg mu ne ku mel noonu bu la dalalee fokkun nekkal waa ji ndokk nga te yow bay na duyoo fii yaa ngi ci diggante ganam mu ngi kontaanal ci njaati gi bi nga xam rek fas yéene bu mu la jéppi mukk fas yéene bu mu la dàq mukk sa xel mi fii dal la laa te fa bul nekk di dox fii saa den ci yóbbal wala te dafa tat te bul nekk di gendee ku yóbbal waaye nekk bi de de de nekk bi de fu wér lu gerte war nekk bi di seetal lu tere ji waaw yu mel noonu war nekk di tàngal lu keccax te ñoom moom lay jox moo gën yooyu yëpp loolu ëpp naa def li mu bëgg a wax mooy sama mi nga xam ne jaaxalu dara moo gën ku ne su la tànnee ba teg ci lu xam ne ñam ñoom tànn la cay teg da ngay fonk lam la da maanaam da ba méngale loo xam ne ñam tànn la koy méngale da ngay fonk loola bu baax a baax a baax a baax te bañ a tee geesu xam-xam yi àddina yi la ndax moo lay xamee bañ a tee geesu xam-xam yi àddina yi la dana ko baax a baax a baax waaw ndax xameem nga moo sa terrain bopp da nga yëngatu ci buntu sabab comme moom nam la ca tegee rek waane ci yàlla ngay sukkandiku keroog bañ demee bañ demee barki démb balaa daaw da jay mm. tabarakallah seede yu rafet rafet la ko dëkk ba seedal ci ñun daan yore woon ci diine lool ñun daan yore woon ci diine lool am ku wax ne liggéey xamut ci benn bu toll ni jàngale te lañ ci nekk mën na jëm benn fukki at na bu tàggaloo dara ci mm. nga ko bu baax a baax tegtaloo ne boo xee su bàyyi lu mel noonu hmm. bu la si yàlla tànnee hmm. da nga jaa nekk te yàlla tax hmm. te nga bàyyi xel ndimbalal yàlla nekk nga bañ koo teg ci looy xamee ci ñetti nit ñi nekk nga bañ koo teg ci looy xamee ci loxoy nit nga jaa nekk te nag dëgg ñoon parce que yàlla ndimbalam moo gën ñàkk nit ñi moo gën loxoy nit ni ko waxee de hmm. waaw sama borom bu la tànnee hmm. ci lu xam ne ñoom tànn rek la koy tànnal hmm. loola da koy fonk te dëkk ci dimbandikoo te sa sitte nga tréb la ca yem waaw jamono tijaan yi bokk nañ lim daan dénk ay taalibaam rafoon si métti amma fi ay jël ah te te nga rombale ko li loxo yi ak li muy tey ñu mën leen tànnale ko. lu jar bàyyi xel la de. lu jar bàyyi xel la de. dama mos a am fii benn mbokk. du mel moom dara. ëllëg. Hmm. waaye xam-xam moom boo koy joxe ci mën a génnee rek ba hmm. mu koy wane hmm. wax boobu lëkkale dafa bàyyi ko këram dëkk ci dëkk bi ñëw fii wala bis ak bis la kara laa muy seen fara daanaka lépp laa ko jàngal te ngeen ni ma xate maa gën a xat foofu yéen bu ñu joxoon laajuma ko dara hmm. mosagul ma jox dara te hmm. fii may wax ak yow hmm. mosaguma ko laaj dara te lu mel noonu ay yenn yoon ma gunge ko bëte jigéen ga mooy boo gisee sa yaratu ci jàngale nga ma jàngal ca dëkkam bi nga dim ko réparal wax loolu wax loolu wax loolu donc bu baax a wax wala bu baax loolu rek loolu rek loolu rek wala bu loolu rek ma ne ko man heure bu ne maa ngi jàngal koo xam ne gàcce ma ko mu xam fu ma bay gàcce ma ko loolu gàcce ma ko mu xam fu ma bay waaw loolu boobu bu doon da nga ci génn bu doon da nga ci sax de bu loolu de bu loolu de dafa war a xam ne nit dafa war a xam ne fu mu nekk tegut fa boppam yàlla mooy ko fa teg loolu ku ne dafa war a xam. gis hmm. nga bu baax hmm. mu xam bu ne man bu ko yàlla wane duut moom moo koy doxal yàlla koy doxal. Hmm. su waane yow boo ko méngoo da nga war a seet sa diggante yàlla bu baax a baax a baax. te itam di ko nga rombale ko nag li su wutee nga rombale ko ñetti nit ñi li hmm. ñu am mënut leen a génn waaw hmm. mënut leen a génn nit li ñu am mënut leen a génn hmm. mënut leen a génn loolu moom dëgg parce que boo gisee moom baax yar yi daanaka ñoom lañ ñu ko joxe yar yi ñoom lañ ñu ko joxe waaye loolu loolu loolu man foofu nag kenn du ko wax affaire rek man du ma jàng comme du ma liggéeyal wala du ma jàng comme du ma jox waaw loolu man foog naa ne ku tax day sàkku tuyaaba rek xam ne lii jaamu yàlla la wax da tuyaaba wax ko mukk wala ko talal mukk waaw maka li basarin aw yutiyahu llahu alkitaabu ba mu nubuwaati su ma yokkoon dinaa si tuuna abaadan li min duni llah dafa leer leen dafa leer leen a benn yonent bi daan wax ne dafa leen ma nangam a benn yonent bi daan wax dafa leen ma nangam a benn yonent bi daan ma yor nangam yéen li ma am mooy li la yàlla santaan li la yàlla rek qul laa aqulu lakum indi hmm. xazaa'inu llaahi wa laa a'lamu l-ghayba hmm. wa laa aqulu innii malaak waaw. waaw. Sëriñ Sang nga tàmbalee xam nag moom maa ngi xam nangam. Sëriñ Sang moo waxoon nangam te naa ci sama bët de. kooku du nit yooyu du dara. yooyu du dara. sëriñ bi mooy kii teg nañu siraatal mustaqim rek. ولا يقول لك من دون الله ولا أعلم الغيب ولا يقول إني ملك major baro kata am solo la pare ko kun mayono te ala niya daaji ndokk wante te bay na duyoo fii yaa ngi ciy ganam laata sama balde dox fii saa din ci yóbbal wala te dafa xatt bu jëndee ko ah bàyyi xel lay amee ci lii ak yooyu bàyyi sa mbir yàlla rek. ba ñu ngi ay waxta fay te wala nga dee xaar. li koy ruuj yi nga al kuréel moom yow man abdi. te bu da nga dellu mu ñëw ci moom. biharin ci gàcce mos bi duñ ko raaj wat di ba jaarale ko defar sa xare ji. da nga jéppi de sama borom kéemtaan na xam hmm. ne yaakaar ne bu ca duggee la moo yàqule hmm. kenn bu ca duggee du ko yàqule xasanaatul hmm. abraar yi sayyiaatul muqarrabiin xasanaatul abraar yi ah, sayyiaatul muqarrabiin waaw ah, loolu moo tax taalibe da war a jëm yàlla ah dafa war nangu dogal a baax loolu bu leen ci comme que nekk bu la ci yàlla joxee ngan da nga xam ne moyatuloo ko nga dogoon da nga moyatuloo ko uja loolu la bu baax a baax waxuma kenn ne damay wéy ci jàngale ba fay loolu man waxuma ko kenn waxuma ko kenn mus ndax xam nga lay dogal waaw nag da nga war a dëddoo rek waaw ndax xam nga lay dogal te nit yàlla yi war nañu ko ci mujjee wut waaw war nañu ko ci mujjee wut da nga man bokkuma ci ñoom waaye nag bu la ma andi ñoom tax dafa wax dëgg yàlla. kon mu ngi doon jëwut. mu ngi doon jëwut. waaw. mu ngi doon jëwut. mu ngi doon jëwut. góor gi daal nekk na ci nekk na ci. Hmm. ba jàngalee ko ba. waaye moom boobu ko nekk na ci. ba jàngalee ko ba. waaye hmm. moom boobu ko nag. Hmm. ndax bu ñu koy daat ma jàngal ñoo gis ko dikkatuñ daa ngi jóg yooyu moom dafa wut dem seetlu woote woote bi ñu bi pare buntu ñu la ngeen jàng dafay génn ñu ñëw ñu ci set la tàmbali jàngale bu ko reer bi sonale woote jàngale bu génnee jàngale ba nga xam ne li pare na bëgg a dugg si néew bi dañ ko dimbali ko mu jox hmm. kon ay taalibe yi ñoom ñoo xamal seen bopp ne suñu mënatul dematuñ hmm. ak jàngale bu ñëwee bu ñëwoon wala bu génne du fekk hmm. dugg si néew bi ko tax a ba dikk yi ñu tax di jot ñoo xam ne mënatul woon mënatul woon mënatul woon mënatul gisal ko bu baax a baax gisal ko bu baax a baax. wasan na nga teg ko mu naaxaata sa yësuwaay kër yi mu la dalal gërëm ko muy sa dal mooy ëllëg la ci yàlla dogalal dama dund sëriñ bi da ngaa nii da nga koy gërëm nit su bëggee noppalu da koy gërëm dogalu ko bu baax a baax ndax moo tax léegi mu ne kër bu yàlla dogaloon ci man bu ma yàlla xàttee loon dem safara hmm. ma kontaan ca ndax la mu ko xàtte hmm. waaw da nga ñun daal di dellu mu gën hmm. mu ne moom daal lu mu ne si ñu buñ naati loon dem mu ne ah man na ko rek xaw ci dara loo ji kii parce que ñun bi yàlla buñ ñu ko xàtteel loolu ko dina ko waaw baax foofu comme xàgg soo duggee daa métti ndax war la ko dal wa mooy borom jiitu góob yooyu diggante moom boromam rek moom moom moo ko taxal. waaw te laaj dama war a déglu yàlla bi la wax jógoon. waaw waaye saa doon xam yàlla bu métti. loolu loolu moo tax xam nga nag boo duggee du ko wàññi dara. waaw loolu nag waaw jooja nag comme ni koy daaw yow mi nga xam ne waa xam nga xam nga ne bu ñu duggee du ko wàññi dara loolu tax xam nga loolu xam nga bu ñu duggee du ko wàññi du ko wàññi dara loolu waaw. mën naa ko gis ci yaay la ma dégg mën naa ko yaa gis benn nit yàlla ci wàll mu ne buñ ko àtte lan def la war a moom ñaar na moom ndax gannaaw loolu la àtte rek moom ñaar na ñaar na ko bu baax waaye ñun daal ñu jàll jégal waaw wajam mu ngi tekkoo mu naaxa sa ko yóbbu waay ay waxaay yi la woo ba mu jàllar bi bara dafa taxalee taxalu rek waa taxar bal de tànn dara alee ci moom wal tax mat na nga sant rek yow taxan ji baax na boobu lay wa doonuhu alxujubu allati asat adaaniha mahalal hudhudi fartut ilayhi jawaada hasmin muhsamin مستفتح الأبواب غير معرض وإذا رأيت من الممالك رايقا والسل عنه ونحو مالك اسمدي وإذا جلست على رفع بساطه فسقاك صرف الخمر غير مسرد بان فلترعين أدب الجلوس ولا يهن ومن منه جاك فيستحق كل يدي arrihala ilal karim ci lañ nekkoon mooy asayru ilallah ne wa ida daa ca bu la wooyee moom karim wa doone woo te diggale ne ko alxujubu ay kiidaay allati kiidaay yi nga xam ne azab tëna xadaani ha way jegeñam maxaalal hudhud peram hudhud hudhud moo picc moo picc mi nga xam ne moo waroon yonent yàlla Muusaa Balqiis malikatu Saba boobale buuru Saba ba mu ne su fekkee Karim moomu daf la woo te sa diggante Karim am ay kiiday yoo xam ne piccam hudhud sax su ko bëggoon a xëtt dana gëlëm waana lu mën a xew kërim xoona la wayu sax dana te bu la xooyee moom kërim wa doona woo te diggale na ko al wujubu ay kiidaay allati yi nga xam ne asat tëna adaniha way jege ñam mahalal hudud di taxem hudud par kut na nga socc lay jëm ci moom لا يدخل من نار جروا ممتقنا ولا نار جروا بشك نعس من كلاج ورقكم مستركع الأبواب داج وبل كنتي غير معرض دون كل دم غير معرض دون دم دم mu ne su boobaa na nga def takku muy sa waruwaay nga war ko te fëgg bunt yi pour ñu ubbil la bul am ak dellu gannaaw waaw ah, lum niru niru niru ne yow ku sori nga ci àddina ku sori nga ci ci ngal mënde sama borom bu la wërsëgalee nga xamam jublu ci lu baax rek bal naa ko ne boo ci jubloo dañ ci am cër da nga koy xam luñ caa jëmee rek nga jël way saara te booy jugee minal mamaliki ci mamlaka yi mooy li buubu moom rayatan aji hiire fal fal ha na nga jëllale han walif ko da nga koy xërëble was mutte na nga jublu nax wa maliki yi wàllu aji moomam su ko defee boo jubloo ci yàlla ñu ko baax a baax a baax li ngay liggéeyee da ko jëmee ci yàlla loolu nga yëg ci sa mbir loola nga yëg ci sa mbir bal mu di nga doyloo ko ba yow mi waroon yéene ci soxla nga doo ko doo ko defati tamit dafay waral taxaw bu dul taxawu kaay rek bu dul taxawu kaay nag boo ko taxawee ah, doo dem fa nga jëm doo dem fa nga jëm de maanaam wàllu sama borom tabaraka wa taala dafa xoom nit ku nekkee ci lu baax ci ko baax a baax a baax man naa dem ba ca kanam xam ñu ko sama borom di defal waaye ñu koy wan dañ ko baax loola mu nekk fekk na lu war a xamee ne moom li ma def baax na la waaye warul jàpp ne moom lii la doon wut rek borom defal na la yaa ngi yaa ngi yëngatu ci xam-xam yéen su boobu dama dama dem ba léegi nga am ay dégg yu sew yoo xam ne yaa ngi ko xamee rek ci xaalis bi lan laay te dama dama dem ba mel ni fi mu laaj tamit jox na leen jox na mu lay dikkal am ñu la bant lool fi mu muy la yomb am ñu la bañ a lool lool fi mu nangul la bal sa bopp nga rek wax xam ne yow wax lu yéeme rek nga doon wut waaw bal def sa bopp waaw nga def loo xam ne yow suñu liggéeyam rek nga dem wut waaw bal def sa bopp nga def loo xam ne ñu doon xëy na si joor yi yow dara ci biir mu tax rabbul lam ara xayran waaw man mu tax rabbul ilaa lam ara xayran rek da ngay dara. waaw te loolu la soo ko defee muy dayoo dayoo mujj teel a teel a dayoo dund dafa dund bi jeex soo ko defee muy dayoo da ngay mujj a tas bànneexu bakkan rek li muy dund dafa dund bi jeex te loolu la xam nga bu baax moom da lay lor rek da lay lor rek da lay lor rek da lay lor rek. mujj dikkal moom nga defar ci yàlla rek xam nga tey buur bi moom baadee comme nit ñi noonu la këram baadee kem këti nit ñi noonu la dëkkam bi wutee këti nit ñi mën na ko misaal ba mu leer yow su fekkee yaa ngi digg àll ba li nga dem mooy bu nawet daawul la bay rek te jëriñu ji sa ñàkk loolu daal mooy la nga toog benn bi oto bu rafet dikk nga président ne nga fay kanam bu baax a baax kanam waaw bal nekk di yëngu oto beeg yooyu su ko defee soo déparé nga dangay jub capital bi te sa diggante moom sori lool nag nga di gis yoo xam ne ñu koy yàlla amul ndax rek ngir dëkk ci ci la ko woon di dem daanaka boo génnee mbuur tuuti rek hmm. bala nga waaj a dem ñaaja hmm. foo demee tàmbalee di gis yoo xam ne te yàlla moom xam yéen hmm. ñu liggéeyee yoon ya ñaata yu bëri ñu table yu melek ñu takk dara di taxawee ak fii ci biir tabax yi waaw dégg nga baax a baax waaw waaye ñu yoo xam ne daal la xamul loolu nag bu fekkee sa bët doyal nga taxaw wax dëgg yàlla lañ doon doxee di fekk kon moom bu fekkee sa bët doo fekk ba rek lañ doon doxee di fekk nga taxaw wax dëgg yàlla moom lañ doon da nga doon doxee di fekk xam nga loolu gis ko lu mu la war a jëriñ mooy nga xam ne wàcc gën a yoon xam nga lu mu la war a jëriñ xam ah, loolu mooy li mu war a jëriñ nga xam ne wàcc gën a yoon waaw ah. te bu mu ñëwee rek doo gën a xam ne wàcc gën a yoon soo demaatee jubal lu la gën a yéem rek gën a sii la tax nga taxaw ah ba tey danga dee waaye soxla du fa bañ a de ndax li nga gis ni yëpp dëkk buur bi la yow borom dëkk kon kay li ngay def mooy dangay dugg ba gis rek sa oto bi la wàcce oto bi la jëlee fii léegi bi pompier nga laajte ku bëgg a dem pale nu mooy demee ñu ne fay jël taxi ci message boo jëlee taxi boo demee ba àgg boo wanee sax yaay ñu xam la woo ñu dugg la wax nga war a toog fu nga dajee kilifa bi soo bëggee forage bi fu nga ko mën a ñaane soo bëggee àll forêt bi fu nga ko mën a su ko kii dimbali si dàmm gi ah foofu foofu ku mën a toppatoo yee de waaw. waaye kay ca pegg weer ya dara oto yi da rombe su fekkee dañ ko doon muy demee nga taxaw oto muy dikk fereeku la rek nga daanu léegi sandar mooy dikk nañ ko saate fekkee loruwaale fekkee loruwaale loolu mooy tubaab yoo xam ne boo ko defee muy dayoo da lay yàqal rek day yàq sa àllaaxira rek du la yàqal rek kër boo demee ba ci kanam yàlla du la yàqal rek gis nga dara ci àddina jaru yàq sa àllaaxira xam nga loolu mooy dafa am yoo xam ne boo ko defee muy dayoo waaw bu ñu demee ba ci kanam yàlla day yàq sa àllaaxira rek waaw lu jar xam la waaw lu jar xam la way daa raaya te boo gisee mel na maaliki ci ñu moom yi raaya tan aju yéeme fal talaa na nga jëllale xanu walis ko karagam ma gi dafa am kii ñam sama man si ñu waxtaan mais naa ko ñaanal ndax mu am xalal man naa doon xam nga ne moom moo am xalaat sax jënd waaye nee na moom moo am xalaat jënd naa ko ñaanal moo am xalaat wax dëgg yàlla loolu xaaral ko waa sax rek waaw loolu xaaral ko waa sax rek wax dëgg yàlla waaye nee naa ko ñaanal moom moo am xalaat jënd man nag xaaral ko sax ne moom moo am xalaat jënd wax dëgg yàlla loolu la wax de waaw. waaw waaw ne xaaral ko sax ne moom moo am xalaat jënd waaye loolu la wax de. jëmee bu baax jëmee bu baax ah ñu doon la mu wax ah nag xam nga faa na mu mu wax la jënd bi daal ñu si daal ma toog dinaa toog mu toog si man toog li wax li ko ah man nag xam nga faa na mu wax la jënd nag wax dëgg yàlla waaw ah, wax dëgg yàlla loolu xaw a baax wax dëgg waaw ah. <coughs>

man ma ko wax ba ne ko yooyu ñun suñ jikko waaye daal su ma mënoon ko laaj ma gënal xam nga foo wane loolu rek mooy tontu ma ne ko man nag koo xamoo daal te rafet na mu yërëm la. sëllaay bu baax waaw waaw sëllaay bu baax waaw. xam nga nag jëkkoon naa waajal na sax waajal na ba déwén bëgg ba dara indi tontu bi. léegi joxaat naa ko beneen maa ngi ko xaar rek xëy na bu gàllankoor déwén bi jotee wu des rek dana waxaat ne rek dana waxaat ne rek mais da ma da ma laaj wala daa ñu ne yéen suñ mbir xamuñ yooyu waaw. waaw ma ne ko waxoon naa la gën a ñun xamuñu waaw man man nga ñàkk ma laaj gën sama laaj moo ma gënal. wala waaw bu la man dafa rafet ci man mu yërëm la te xam naa ne amuloo doole. xam nga li ko gënal la wax man rafet ci man laa <laughs> di dikkee waaye dëgg moom dëgg la rek dëgg moom dëgg la rek waaw. wa idaa raayta boo jot boo gisee minal mamaaliki ci mamlaka yi raayatan aji wéele faltala na nga jéemane anu walis ko yi fëkk ñenn ñi ba da leen tax a taaw nañ doon defee alintiraar ilallahi ñi ba ko loolu bul nangu ñu fëkk was mun na nga jublu nax wa maliki yi fa wàllu aji moomam nasal ta boo wàccee way daa jalab ta boo jékkee ala rafiin bi satihi ci sa jadam bu yëkkatee ko daraja ba moom kërim moo tax na ba àgg ci kërim bam dalal la wa saqaa ka topp mu nandal la sirfal xamri sàngara su sell xayra musarradin donte wala mu néewal nga dama na bëkkërim boobu tegal la ca sa jadam bu yëkkate ku dara jaba nandal la ca sàngaraam su sell fa ku jox la ci noonu lu war a mën a mandi ni nga góorgóorloo ci yàlla ba mel ni am na am ci yàlla am na lay xam am na lu lay dikkal loolu bu amee fal tarayan na ngay sàmm adabal jëriñ si aji tamaane nanga xam baax na ci pays bu mag bu nekk bu laj ko ci nit ak may bu mën a xam dafa war a am teggin diggante ak boromam fonk soriyaam yi bu baax dexem suñu dexem la ci waxin dexem suñu dexem la ci defin xam nga la bëgg a def hmm. ak lépp hmm. ak may bu mën a hmm. ci àddina dafa war a fonk soriant bi bu nit mënu ko tamit bu baax a baax a baax ah nit man da xam ci yàlla li mu doon tuddee xamut loolu man da nekk su boobaa warul jox boppam sañ-sañ suñ joxul yeneen bi ñu xam lu muy xoote ne moom gën a ko ci yàlla yeneen bi ni mu ko wax mooy summa ja'alnaaka ala shari'atin min ولا تتبع الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا مجرد يصلى مجرد يصلى دنيا مجرد يصلى فاعترر بالذي كانت شريعته أنه لو جاء بالحق عن الله فاعترر بالذي قالت شريعته أنا ولا جاء بالأنباء لله الأنباء لا يفهم بضاعا لنا sama ji teew laa doon musalla sama sëriñ ba nga wax yow nee ko wala yoxul bu ñongaan hmm. semelun mandite ijaaka sakkal xewa salla su lii yow tayoxut bu yongaan sama nun hijaaka sakal hijaaka sakal xaya taxit takka sayfu xaya salla sunu di borom kattan bu la fi mandite jàppee ba nga jaxase kaas yi am na soldaar yu taxaw ne ci bunt bi ñoom xamuñ kenn ku def nangam daal jàpp leen ko wóobu rek dañ lay jàpp de waaw bu la ko mandité jàppee ba nga jaxase kaas yi am na ñu fi taxawloo ñoo xam ne waruñ kenn mi leen wax mooy ku jaxase kaas yi jàpp leen dañ de waaw am na noo ne boo ko wanee la ñu fi xiyaal yoo ca xam dara waaye buur yi war a toppatoo sariya bi ñoom waruñ la fee bax day xañ jàmm day xañ nit nekk jàmm am na solo de waaw ah, baax lu may xañ nit mu nekk ëpp na ëpp na ëpp na kii de ëpp na ëpp na sàcc de waaw xaasiman len ajwa bëri ne wa len xawaay giste xaasiman len mitwati wa ida tusaaxibu aw taasiru faltamis xayral jalan jadi wa ida tadalta fa bil mahillati a'tabil والنفس أعدى كل عاد يغتسى فأضر سم للفتى متقلب وكن nga nekk. ibn waxtika de doom sa waxtu. te itam dangay fonk dundal say waxtu ci ay jëf yu baax waman tabudu saatun fi umrihi takun alayhi hasratan fi qalbihi nit lu mu neenal ci jamonoom rek bu xàggee fa ñoo fayee neenal ko dana ko jëf xaati man mbir moom nga laa ji takk lil ajwa fay ni ñaal ñaari ajwa fii te mooy albadlu wal farju walil hawaajis ak xilaf su ko defee nga bañ a nekk nit koo xam ne soxatul banni wal farju rek lay nekk di critique xaafi nan daa di denc lin nit wa du lam bañ a doon ko xam ne yu dul dara yi ci laa jëmale ay bëgg-bëgg ma ci itteem ba doon ko xam ne yu amul njëriñ yi rek yàlla te itam bu nekk ni xaati nan daal di dañ mbiri bët wadi nag ba doon ko xam ne yu dara ci laa jëmale ay bëgg-bëgg ma ci itteem ba doon ko xam ne yu dul dara yi ci la jëmale ay bëgg-bëggam ci dikkeem ba ñu doon ko xam ne amul njëriñ yi ci lay kuuf rek laaj ñoom duñ wax da lay dundalee say waxtu ci jaamu yàlla bu nekk nit koo xam ne soxla rek lay liggéeyal bu nekk nit koo xam ne itam da ngay def yitte dara rek ñu ko bëgg ne da na nga ka doomi sa waxtu xaal bi man juróom daraa di fàttalil ak yow fay ni ñaar ñaari ak yow bi te mooy alfadlu wal fard wala xawaaj bi sa ak xalaat yi xaal bi man juróom daraa di dañ comme ñu tuwatu làmmiñ dafa fay yow waaye làmmiñ lañ way daa tusaahibu boy xàndaale aw tuasiru wala ngay xàndaale faltamis na nga sakku xayral jalan dadi kudduma aji kon jikko wadda ak kudduma aji doxadi ak xaruma di pour aji dox te itam booy fekk koy xàndat ci yàlla benn da nga ko jàppe muy sëriñ su ko defee muy la teg ci yoon wala muy mbokk taalibe muy wettu lanteeg yow ngeen di dimbalante ci lu lu mën a xew rek boo demee bay ànd ak nit da nga war a fekk ku mat xam sa njaboot su xam ne jikkoom mën na caa jëriñ kam ànd ak góorgóorlu mën na caa jëriñ kam ànd ak dafa mën caa jëriñ mën na caa jëriñ kam ànd ak waaye nit bu amul yar ñaaw jikkoom ku ngeen àndee it da ngay loroo ci jikkoom ñu ñaaw nit su soo ko defee muy àndandoo rek dalay tardé rek nit su fekkee ne xamul lu am njëriñ ak lu amul njëriñ su nga xam ne bu la bëgg a jëriñ fay mu ji lool la abdoulaye naa fi xayrun min sadiqin ne wa ilaa tusaahibu booy àndaale aw tu'ashiru wala ngay àndaale fal tamit na nga sàkku xayral jëlante bi mu aji bon jikko wante daane ak tudduma aji doxadi parce que amadi ci aji dox way dan tasal te boo na ma beru faatasil na nga beroo bil muxillaati ci njëfandi ni su bëgg a beru dafa war a am njëfandi yu doy dafa war a am fóotee kaay am toggee kaay am rootee kaay su ko defee du loru ci mar di loru ci xiif di loru ci xiif alhamdulilah waaye feeg nga xam ne waaye feeg nga xam ne yooyu xamagu ci loo doy su beroo day loru rek waaw damay xamagu ci lu doy nay jege ñaar njëkkoon su bëgg a fóot mën a fóot su bëgg togg mën togg su bëgg root mën root te na xamaguñ njëkkoon ah, na jege ñaar njëkkoon rek waaw. Ah. ren wa idan tasalta boo na ma beru faatasil na nga beroo bil mu xillaati ci njëkkoon naka noonu nit su demee ba ne moom lim xam day na ko jëfandikoo hmm. Hmm. soxlaatul ku muy lënkoo kooka dafa teg ci yoon hmm. na fekk booba mu am lu doy waaye nit ki xamagul lu doy su xeeboon de soxla ñu yàlla day dugg waaw meneen mi xaali kaala mu xam sa mbir la boo ko waa mi ak noose law kër gi laa jox xale da ngay xam lu defar suba moom boo soxla ko kenn itam la nga na la wan nafsu bakkan nag aadaa kulli haadin moo gën a tat nooneel ci aji bañ yox ta saa ji dañ ñu baal léeg-léeg nag bakkan nag danaa jóo nit ci ku dul àndandoo bakkan itam danaa jóo nit daru te dañ ko daru jotul luñ ci mën a doon ne dafay alal wane ak su bakkan aada kulli gën a tar nooneel ci aji bañ yow fasaa bi jëf na ko waa daru sum min sax wala jiraaji xalal dam ñi daal raqillun turidu xayaatahu mm-hmm. wa tawadduhu mm-hmm. wa yuridu qatlaka kal hisabril mulbidi mm-hmm. ركبت منها ظهر صعب جامح متجشب لهوى الهوى مستعمد بل ظهر موج راجف بك فائسا أبدا لبار لم يعلم موسدي فقتل عدوك فاسترح من كيده القتل مقدع عن كل جلندبي بعلمه mbaanu maanaam bakkan lum jara hóolu ma dee la doon wax mu ne tëllun noon la moom bakkan turiidu bul danga nam ma xayaatahoo dundam watta wadduhoo te nga de ko sopp wa yuriidu moom dana nam ma qatlaka sag rey kalifa bi mel ni gaynde al mul al mul bidi jiraaji footu mu ne bakkan noon dëgg la ndax li yaay def ndég ma ko bëggee loola yow saxaala ko moo ci nekk waaw la ko dégloo li saxaala ko nekk loolu ta tax taw rek ku ñuy forcé ci lu la waaw tullu la turu dana mu nam da nga nam yow xayaatawoo dundam ne ko sopp ndax la koy neex mooy neex ci yow wala duma yuridu moom muy na mën a xat laka sag rey mel ni gaynde al mulbidi bu pour te wara leef na min ha ci bakkan adara saabin gannaaw ak waruwaay jaamixin wuraaji mam mutajassumin wuraaji toggoo li hawal huwa ci banneexi bakkan mi mel ni kambu wala li huwal hawa ci kam mi banneex mustaamidin wuraaji mooy la mu ne bakkan di dund ak moom te lu baax a baax tey def ni mel muy mel ne dangaa ne ci yoon wu xam ne fas wu la waruwaay wu mokkut xam ne duut boo fekkee rek mu nangu nga daal di war teg ci sa bagage mu wóor ne moom mooy mucc war naa mën a yóbbu ko nga jëm yow itam nga mujj balaas bi mujj te nag moom mokkut nag te duut booy ñoddee rek mu nangu ngeen dem ba ca kanam nag waruwaay woowu daal di màmm nag jëmali kàmm kàmm gi bu ci daanoo moom dana loru yow da nga loru ba yow nga mucc moom mu mucc man di la yóbbu balaa bi itam mucc jëriñ la wala jëriñ mooy kàmb yooyu ci la mën a amee foofu nag il faut rek góorgóorlu ci fekk ko lool nag bañ a yàpp ci fekk ko ak itam nag boo koy moom lay dundee wala si kàmb bi bakkan noonu moom mën a liggéey lu xam ne si moom dootu jeexati ci gannaaw boo xamee nit ki woon nañ ko sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na moom bakkan moomu nag lu ko neex rek la xam te dëgg day wax ci moom li muy bëgg mooy nit yu am solo yu rek te nag dafay bañ lool nag ba nit ki xawale ko fi mu war a xaw bakkan mën na koo gañe ba dugal ci jiwu ko yàlla mu forcer ko bu baax a baax te bu ko yoon la koy tegee ci la koy teg war a kii te war a leer na la min haa ci bakkan soxla saatin gannaaw ak war waay wu jafe jaabi xel wu daa ji màmm mutajassim min mu daal di toggoo li hawal hawa huwa ci bànneex yu mel ni ay kàmb mustaamidin bi daal di mooy ci naan bal li fi nekk waral nañ la kay ci bakkan zahara moo jën gannaaw ak duus raaji dën bu raaji lox bu raaji bang bangi di caag yow waaye ban doom mu daal di wattul moom gis boobu abaran faw li daarin ñaal daw kat gudaa ji soxot mm. lam yoo xam ne na xamale su ci rëbb mm. ba muy war taxaw suñ ko taxaw looyee mm. ci buur ay ci buur loo moo ci dañ wala min mel ni koo xam ne duusam géej da koy jël yëkkati ko ba ca kaw bu ko duus bi gi la koy daanee muusoo fokk su rek rëcc géej bi daanu ci tefes bi ci lay mën a muccee te foofu ci tefes nii nag benn dawkat ak fi bu xam ne day matte te du dawkat buñ bu xam ne suñ ko buur ne wut wala su buuree buñ ko dëkkee day dëkk léegi duus baa ngi ko yëkkati bu rëcc ci duus bi ci ndox mi lay jëm bu rëccee duus bi su mooy dali mu ngi ci tegg dawkat bu mel noonu subaa moom nan lay def ba rek ci duus bi ak dal fu xam ne dawkat bi du mën a àgg ci moom itteel la loolu moo tax nit il faut rek muy góorgóorlu te li muy def muy ko teg ci yoon waaw moom du doy doy rek ci duus bi rek waaye ci duus bi yéen nag dangay war a dal dal fu xam ne dawa dawkat bi du mën a àgg ci moom nit noonu la mel bu ko bakkan xooxee su fekkee bakkan rek bakkan da koo dugal ci lu koy xalal hmm. mu ngi mel ne jur rek hmm. bu taxul dugg bi dugg bi ci biir ndox mi la ko jëmal hmm. su dee xeex ak bakkan ba mel ni dana tax seytaane day rooxo dugal ay pexe pour bàyyi xel waa ji bu tëyoo bakkan ba nekk ci lu baax rek mu fexe fexe ba dugal pexeem ci lu baax loola waaye xam tag gis boppam foog ni mooy kuréem suba sell dootu xamati nangu jaam dootu xamati xalaat ko feñ doon bañ mooy dikkaat su ko nit na xam ne jamono fu muy yëngu di jëm ci boromam ku war a moyu awa nafsi la waaye ku war a moyu ma kayidu seytaane la waaw dañ koy ma moomoo dara gi dama bëgg a gis sama si jom bëgg li waaye ku ca mën na koo seet boo demee alxuliya li taalibi tariqil haq Piri Abdul Qadir al Jilani la